naal mbokkum yaayu euh, réew euh, tiktokeur yeeg tiktokers yi nekk ci tiktok bi di tiktok ay ca lësa ngoogu moom moo koy joxe ñu kontaane bu baax a baax yónneel yeneen vidéo on serait chez vous sama xarit ba nga toog di seetaan moom itam euh, fi ñëw tey kër gi ndaxte foo nga ñëw ñu remplir contrat bi mon ami nee naa important c'est sur la 2 I want to say you something brother uh, this is my Mohammed from Gambia come on here and uh, only uh, um, uh, or 27 I a know uh, uh, the real date inshallah rabbi boo ñëwee fii nga xam ne waa Gambia ak bëgg nañoo 2 bi te nee la ñëwal fi nga jàllale uh, publicité bi nee la tey nga ñëw gisanteeg maire bi gisanteeg lamp gars ji waxtaan ci ñu ñëw la événement bi foofu noonu ca Gambia man moom dans tous les cas nga ni maa ci biir inshallah rabbi décembre da foofu ca Gambia that will be crazy with Kheucha with the UWAKEN Wally Balago Seck and all Senegalese people and Gambian people wait for us inshallah ayca Mohamed maa ngi lay xaar très rapidement mon ami très cher dafa am benn boy boo xam ni barki Demba Ndiaye jugee na fi mais dafa def buzz daf fi jugee gis na avantage bi ma jekk saa gisaat moo def clip bi à deux jours ci premier euh, euh, euh, single wala clip bu doy waar boo xamante ni sénégalais yi bëgg nañ ko apprécier na que le mi ngi toll ci cent mille et quelques vues ci xale bu ndaw kon nag moo tax ma ne ko tey mu ne ma ma ne ko clip bi ba ma ko gisee sama yaram dafa daw parce que nga la nga ca way moo nga reflété ci clip bi regardez à l'œil ça même l'homme se nomme tout simplement Pipana Mr Grégoire si c'est bon c'est à 5 4 3 2 1 Pipana c'est parti wop pop pop pop l'international Pi Pana de retour au Parc des Princes moo gars sûr booy lii nag yaa koy doog a def ah tu es le euh, seul euh, artiste boo xamante ni euh, en un espace de je sais pas de semaines une semaine. ñëw nga deux fois au Parc des Princes yow rek yaa fi def. man dëgg la kaana nga de waaw man dëgg la ma bàyyi la téléspectateur yi nga doon maa ngi nuyu Kheucha di nuyu ñëpp ñuy seetaan di bëggee ñëpp di nuyu sama papa di nuyu sama yaay voilà. en tout cas am nañu plaisir bu baax a baax a baax ci dalalaat ko fii ni euh, moom moo di Parc des Princes il fait partie des artistes du moment actuellement il fait le buzz il cartonne sur les réseaux sociaux je l'ai dit l'autre jour nee naa leen mooy euh, xale bi nga xamante ni dafa ñëw rek saf gaañ ñi saf mag ñi saf ndaw ñi euh, saf jongoma jeeg xale yu jigéen ñi xool abi ni ma yow mais nag loolu di ko xoolaat di xool sañca bi naan ni abi rek leel baax na what's up bro <laughs> mu demee noonu xale nu la bëggee ni yàlla la yàlla la yàlla la la mais mais web bi sa carton boy gars yi dañ ko bëgg xam nga léegi musique dafa am fu mu toll uh-huh. boo touché xolu doomu aadama yi rek dañ lay gën a bëgg est du looloo tax uh-huh. yow euh, uh-huh. nga xam maîtriser xale yi fan la ñu bëgg nga defee ak ñoom ah ah xëy na xëy na peut-être loolu mais affaire liggéey la rek ah liggéey la rek waaw c'est ça dañoo job son bi ñu ngi ko job si benn euh, ma xool benn dimanche laa xëy nii hmm. genre à la base son bi sax mënoon il a failli ne pa exister quoi hmm. parce que benn boy laa contacté pour mu envoyer ma prod bi après bu may yónnee prod bi hmm, filuma ko woon quoi. ma toog benn deux semaines yeewu benn grasse matinée nii. cons bit bi léegi refrain bi ñëw sama bopp ten ten ten ten léegi si saa si après si laa commencé di bind affaire yi nànk nànk dem studio dóor ko. ok 120 000 euh, vues euh, en espace de deux jours. qu'est-ce que ça te fait waaw ça fait plaisir ça fait plaisir. ba pare en plus bett que. xamoon nañ genre ñun visé woon nañ fii mais ni mu ni nii. gaaw parce que dafa touché xalu xalu xale ya ah? xale yi nag euh, c'est vrai que ni gisaguñu bu baax a baax jëmm ji moo tax ma lay wax ni leen fii il faut faire le tour des médias pour que gars yi gën a mën a xam image ki ka euh, mais aussi dañuy gis ni artistes yu bari bu nu tàmbalee def benn affaire top mën na def buzz top mm. mën na def étincelle mm-hmm. mais après ça euh, yeneen œuvre yi wala yeneen tube yi ni génne da di xaw a wàcculoo tuuti mm. est à à à cela parce que liggéey boo liggéeyee mm. benn affaire def top war nga la ngay la la ngay indiwaat mu neex sénégalais yi mm. de telle sorte que ñoom ñi koy seetaanaat day dalay jaaxal sax yow mu doon mm. euh, loo mm. xamante ni produit la buy buy gën a avantageux euh, euh, bi nga njëkk a génne est-ce que yaa ngi ci bàyyi xel ouais sur moom t'inquiète même pas parce que instant avantion bi job nañ yeneen yeneen yeneen yu dóob yu dóob macha allah waaye bi nii lañu mujjee job sax moom moom lañu mujjee job te moom lañu njëkk génne génnee donc gars yi nañ xaar rek yu ko yu ko dàq ñu ngi fi. yu ko dàq dàq quoi yu ko dàq fuuf. mais instant toll quoi génn bàyyi kii ay pipaana ah, xale yi ñu <laughs> nga xew nii naka qu'est-ce que ça te fait ah, xew neex na ou bien parce que man xew bu ma quoi ma xewee ba mel ni yow qu'est-ce que je dois faire ah, yow tey ni nga xewee nii c'est quoi génn xale ñëw pipaana may ma photo may ma ski may ma laa qu'est-ce que ça te plaisir nga xam ni hmm, dañoo liggéey dañoo liggéey liggéey liggéey bi mooy fay ni et ça fait plaisir waaw yaa ngi koy dund quoi ngi dund star bi quoi waaw man dund star ah non saa yi nag quoi qu'on dire. Pipa naa yi devenu star ah parce que xale yi gis na nu nañu TikTok bi gis nga vue eh, ñaata vidéo sur TikTok maintenant. sur TikTok 17000 17000. 17000 l'autre fois c'était à 7000 non. waaw sur 17000 si Doudou si kii euh, Abou ça fait ak yeneen yeneen yu ma compté woon. vingt xale yi ñu ngi koy euh, partagé ak di ko def un peu partout dans le monde euh, ce qui prouve véritablement que actuellement il fait partie des artistes du euh, a dëgmal lan nga a loo xam doon ci ak staff beeg lan ngeen décider def actuellement. waaw waaw pour le moment je dois faire un feat avec mon manager am na benn son bu dóob bu ñuy préparé. yow ak sa manager yow ak sa manager bu fekkee ni moom mooy sa manager yow tamit yaay doon manager am. non Jean au fait moom woykat la woon au fait. ok dafa bàyyi woon dafa dafa pause. pour concentrer aussi liggéeyam. ok tu vois après moom moom mooy genre benn DJ Khalid la fi la fi imposé quoi. c'est ça léegi nag dafa taxaw pour defa pour ñëwaat def retour am. yaa manager am nga xel ne booy bi xew rek nga bëgg ci jaaraale. loolu loolu Eh, booy bi xew rek nga bëgg ci jaaraale ni ñun xam na lépp nu mu demee de toppal nele en tout cas def na liggéey bu naaj ci lim la defal nii ñu ngi koy ñaanal moom itam jàmm ak tawfeex on espère voir euh, beneen tube bi di ñëw mu gën a graaw gën a doon lu dóob euh, pour sénégalais yi mën ko euh, jël à cœur mën ko jël enjoy ko bu baax a baax on te félicite davantage merci beaucoup encore une fois félicitations moo ba non gars yi tàggaloo gars pare gars la doon seetaan waaw waaw waaw maa ngi bëggee ñëpp ñu ñu doon seetaan di bëggee Pipana family bi ñu a pas longtemps di bëggee sama manager Marozik di nuyu ñëpp Zox gars yi peace. waaye fils dama doon bañ a wax bi nga booy non non booy. waaw ah, merci beaucoup <laughs> merci beaucoup merci d'être venu nga dugg ci parc bi abi mën nga ko rejoindre foofu noonu laataa ma di wax ni leen insha jom kan la ñu ne laata jóobee déggeen mbaay jot démba déggeen koura falek déggeen démbay sa déggeen mbaay sin may sa bigé may sa bigé maar ajib naara nga con doom jarka ji faramaren Bercy Saloum insha allahu rabi ce décembre fan la ñu ne Saloum stadium ba dana xar ñaar parce que deux ans Wally Balago na leen day décentraliser décentraliser Paris indi ko foofu orchestre bi bi ñëw ah waa Ramdaan yegg si xale yi génn sañse yi génn ñu dana foofu loo xamante ni lu mucc ayib lay doon incha allah ce 11 décembre Wally Balago Seck le Ramdaan à vous amis chers ambiance avec Wally Balago Grégoire ñu